wa aalihi wa saxbihi wa sallama tasliiman bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin yàlla na yàlla defal xéewal ak mucc sunu sëñ di sunu kilifa sayyiduna Muhammad moo ki ñoñ ak i saaba ginnaaw loolu xam leen ne bis bii bisub mbég la ci bépp jullit bu gëm yàlla tey rafetal kon na ngeen ci sant yàlla bu baax ngir bis bii kat mbégte la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci képp ku jaar ci yoonu maa ngi leen di dénk ci bis bii ak ci lu dul bis bi ngeen farlu ci taqoog li leen yàlla tànnal ci ay jikko ak i pas-pas ak i wax ak i jëf te lépp jëm yàlla rekk tax maa ngi leen di dénk ci bis bii ngeen wattandiku def ci lépp loo xam ne digle wuñu ko ci diine wala muy aada du lislaam rafetluwul ndax at di leen sunu boroom tànnal ci la seen texek àdduna ak àllaaxira nekk texe ñeen képp ku jëmul ci leneen lu dul boroomam te taqoog faw li yàlla bëgg te tey setal xolam alkaande ñeen képp ku topp seytaane mu jëme ko ci bànneexu bakkanam ndax kooku kët fi muy mujj mooy gàcce ak naqar sunu boroom tabaaraka wa taala wax na ni wa maa aataakum rasul fa xuduuhu lépp lu leen yonent alayhi wa sallam indil da ngeen ci jàpp mu dellu wax ni fa man yacmal mithqaala darratin xayra yara waaye def ci lu baax bu mu néew néew dana gis njariñam dafay ñeel képp ku jàpp ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi te iteem yépp jëm ci lu baax te bañ a jëm ci safaan alkaande ñeel na képp ku fi bàyyi li yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam indi yéen sama mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk ngir jëm yàlla ngeen bañ a wan ginnaaw mukk di leen yàlla digal ndax bañ a tënku ci ndigali yàlla yi du leen jëme ci lu dul naqar ak coono maa ngi leen di tere ba tey def lépp loo xam ne leeru leen dëppoo naan njub ngir loolu da leen di xañ yoon ak ngërëmal yàlla bu leen sàkk mukk tedd nga ci lu dul ragal yàlla ndax tedd nga kët mooy ragal yàlla bu leen sàkku mukk daraja ci keneen ku dul yàlla muy boroom kàttan tey teral képp posow ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne wan na ginnaaw yàlla tabaaraka wa taala jëm ci leneen lu dul moom sunu boroom dana ko bàyyi ak boppam ak bànneexu bakkanam képp koo xam ni nag jëm na ci yàlla tabaaraka wa taala ànd ak sunu boroom dana ko wommatal ay may sunu boroom wax na ci alquraan ni yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum yéen nit ñi jaamu leen seen boroom dellu wax ni ittaqillaaha xaytu kunt na nga ragal yàlla foo mën a nekk yonent sallallahu alayhi wa wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut képp ku gëm yàlla te gëm bis nay wax lu baax wala mu noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam la ne dina ràmm képp ku bokk ci xeetam te tuub ay bàkkaaram balaa faatu mu tekki ne képp ku tuub gu sell na xam ni yonent bi moom def na la ko war ngir digal na ko li mu ko war a digal lépp yow sunu boroom ñi ngi lay ñaan nga bañ a wëlbati sunu xol ginnaaw ba nga ñu gindee ci yoonu njub ñoo ngi lay ñaan nga defal ñu yërmaande yow mi aji may yow sunu boroom ñoo ngi lay ñaan nga jéggal ak képp ku ñu jiitu ci lislaam te bul def mukk ci sunu xol mbañ ci képp ku la gëm yow mi boroom yërmande ñi ngi sant yàlla mi def bisub iid bi di bisub bernde bisub ak yaatal sa njaboot yàlla na yàlla defal xéewal ak mucc si juduna Muhammad ñi nga xam ni moo ñu génn ci lëndëm ak réer ak bokkaale ak naafeq ak xeebu moo ki ñoñam ak i saaba ak képp ku leen topp ginnaaw loolu xam leen bis bii bis bu barkeel la boo xam ne yàlla defal nañu ci ñun jullit yi lu mu defalul keneen kon na sant yàlla bu baax ci li leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil ci bis bii bis bii bisub lekk la ak naan ci ngëneelu yàlla képp ku ci sant yàlla dana làq ay ngëneel kon sàkku leen ci bis bii may sunu boroom yi tabaaraka wa taala ndax moom kat moo leen musal ci lor na ngeen tuub jëm ci yàlla te jéggalu ko bépp mooy ndax mooy aji jéggale te moo leen mën a aar ci tooñkat yi na ngeen jublu seen boroom ci sàmmoonteeg alquraan ak sunna ak dëppoog boroom xam-xam yi kon yàlla tabaaraka wa taala dana leen aar ci daraje yonent sallallahu alayhi wa sallam ci pexe ñi ko nangulul ñi sant yàlla mi ñu gindi ba ñu mën a wax lii moom mi nga xam ni amul dend subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin